Euh, daal di ko jëmale bitim réew ba ñépp duñu ñu déglu baax a baax pourquoi pas Wally Ballago Seck dem ba nekk raw yu Youssou Ndour nee ni Rihanna donc pourquoi pas donc dina ko doon alors euh, buñ paree foofu dañuy dem si leen ñi nga xam ne nii nag si jigéen ñi ñoom nanaa ñi nga xam ne nii ñoom avant ñu doon am jëkkër euh, bu doon tabaski seen far moo leen di jox greffage jox leen yére <laughs> jox leen dàll jox leen lépp. dara <laughs> wóorul la ci li <laughs> may waxal nii dara wóorul la ci li may waxal nii. ma rek damay damay soraat. alaahu akbar ma fi nekk dafa na déggu ma rek. Aïda Goudiaby Tyr moom tamit avant mu doon am jëkkër noonu la def mm. euh, Mama Sow yow tamit avant nga am jëkkër noonu nga doon def ak kan sax laa war a mm. sama yaay Fama Kassé dama ko Ousmane laay bañ mu dóor ma donc moo tax ak kan ak kan sax des naa fi keneen de donc waa exemple ñoom daal ñoom ñëpp. Euh, noonu la doon def mais léegi dañoo changé Awa Fall youtube bu nekkee célibataire youtube noonu ngay def Khadija Qatar youtube bu nekkee célibataire youtube noonu ngay def alors Oustaz Modou Fall nag gannaaw ba mu génnee yëkkati ay kàddu yu nga xam ne jëmale ko si xale jigéen ñi que góor bu jóg di jël sa xaalis bàyyi say njaboot wala bàyyi say famille say rakk wala say cousin wala say cousine jëmale ko ah bi ne da koy tegal merci beaucoup bi nag merci beaucoup vas yow toppatoo kaaw mag nga. technicien oh. terre boo xam ni ka ngay labat may nga ko deux cent quatre-vingt-cinq mille pour cheveux naturel célibataire boo xam ne yaay fay ñaw yaay jënd mbasin yàlla ni la tabaskil ma nga ni ko mënuma ko parce que amaguma soxna te ba yàllay santaane tabaski ñépp la ko bokk sant du marié du célibataire képp ku mën rek defal te bépp góor goo xam ni yaa ngi may sa gel ci tabaski bi lu mu tabaskee na la wóor ni ëllëg da ko layoog yàlla bépp góor gu yëkkati xaalis may ko gelam ci tabaski bi na la wóor ni ëllëg dang ko layoog yàlla ci kanamu sunu boroom parce que da ngaa bàyyi li la yàlla sant mooy da bàyyi farata di defi sunna li la yàlla sant mooy tabaski bi sunna la def ko soo ko mënee nga ne yàlla mën naa ko mais kii may labat takkaguma ko lewaguma mu laaj la deux cent mille nga yónnee ko ko bu ëllëgee yàlla dana la wax la yonanti bi waxoon wa an maalihi fii ma anfaqahu ëllëg ku ne yàlla dana la audité alal ji nga yoroon foo ko def ëllëg yàlla dana jàkkaarloog yow ni la sa deux cent mille yi ba nga koy may ndaw si ci ban la oustaz Modou Fall oustaz Modou Fall maa la gën a bëgg nag si àdduna bi. d'accord ñu d'accord fu ne taxaw naa xeexal la fa lu la waaye wax ma génn ne yow yaa am dëgg mais tey oustaz Modou Fall tey da ngaa nelaw yow oustaz Modou Fall yow war ngaa génn nga ne la nga ne la que ni booy nekkoo góor waaw bu la joxee dara bu dee da koy layoo yàlla mais yow des fois nga nekk ak mu leer la ni yaayam amul. papaam amul mu bëgg la lool nga bëgg ko lool nga yëkkat sa alal defal ko lool da nga def te yàlla tax mais ko parce que parce que kii nii la des da ngay rom nit nga jëndal ko xar te xamoo loolu fan lañ ko bind ñëw leen wax ma ban téere lañ bind nii jigéen boo ko mayee xaalis te moom amul ko te mu bëgg la lool bàkkaar la génnal nga wax ma ko yow waaye ba pare man lu ma gën a naqari xale góor yëpp lool vidéo bi rek la ñuy essayé koo wax rek mu ne la xanaa gisoo vidéo oustaz Mouride Fall lii dafay jeex de moo Modou Fall waxoo dëgg moo du Fall yow may nga jigéen yow. waaw déet waay ba ba ba eh eh, eh. Modou Fall mën naa may jigéen eh, eh, bul ma fontooy tamit. Oustaz na mbay waaw yow sama doom la as Fall a ngi nii bàyyi mag moom a daan ànd. waaw waaw waaye tam noonu bul ma. tooy Oustaz na may jigéen ma ne Oustaz waay yow tamit. Oustaz bi may jigéen Modou Fall sa diggante ak sa taraayu bàmmeel Ndakaaru gi nga ne ab jigéen mosulaa lekkalub junni Modou Fall bàyyi lii ngay wax man sama nit nga dama laa bëgg mais nga dema dem ba ku di wax loolu naan bu leen may benn jigéen dara. mais est-ce que lu kenn yëgut. sañu ko non non non. sañu ko sañu ko mbay non non buur de génn la. ah mais mbay yooyu nag bàyyi moom bu ko waxee jigéen ñi ni ñuy naxi góor ñi moom it. alors moo ngi noonu en tout cas depuis ba ba léegi xale jigéen ñi kenn kontaanu si moom et pourtant moom fang si xale jigéen la woon parce que xale bu jigéen bëggoon maanaam gaaruwaale sa moroom xale bu jigéen ay waate Ousmane dégg ma Ousmane Sonko sax ay waate Oustaz Mour Fall nga doon teg maintenant ce n'est plus le cas. ah en moo judd ñoom ñaar seen diggante mais Oustaz maa ngi lay ziar bu baax a baax di kontaan si yow liggéey bi ngay def rafet na macha allah yal na yàlla. waaw parce que daa lu leen arrangé sa xam-xam màcc na. waaw waaw sa xam-xam màcc na. <laughs> des fois mu wax nga euh. ne Oustaz bi li mu wax tey wax na lim loola arrangé nga ne waa ñu ngi lay jaajëfal sa xam-xam màcc na benn dañoo bokk tur. waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu taxul ñuy wax euh, jàng na waaw xam na lu muy wax tey nga xam ne jàng na yow tey yow tey ngay doo nga xam ne oustaz Modou Fall jàng na lu mu wax nit du ko weddi hmm. wala ku ko wedd da nga koo teg fu la neex donc oustaz merci beaucoup jërëjëf euh, ñoom na naa ñi <laughs> hmm. kontaan na si yow. non Binette kontaan na si yow. non Fauze moom ma nag si yow wala non man nag c'est le contraire. c'est le euh, contraire moomoo donc vas-y je euh, lenn rek laa am benn laaj bu ma koy laaj. moom laaj ko waaw waaw parce que xam nga wax. dafa am dafa am nit ñoo xamante ni foog nga wax parax ndollu gi ba ñu ñuy doog a comprendre bu fekkee jënd nga sa xar parce que dafa wax lu am solo dane yàlla dalaa digal tabaski ka ngay célibataire ka ngay marié léegi yow yàlla digal la tabaski nga ne man amaguma soxna waaye yëkkati njëgu xar jox ko sa gel parce que deux cent mille jar na xar mhm. waa léegi ki nga xam ne jëndal na boppam xar daat ne xaaral ma jox sama gel bii kat parce que man ak moom ñuy génn. tew bu ma sañoon dama koy def soxna de un bu ma sañoon it du ñaani leneen feneen. dama ko koy jox est-ce que dégg nga ma bu baax a baax. parce que bëgguma mu ñaani feneen mais dama koo fas yéenee fas soxna. te yow jëndal nga sa bopp xarum tabaski ba pare léegi loolu lan la ci yàlla wax ndax ba tey da koy layoog yow wala déet bi topp mooy kenn du weddi ni am na xam kenn du weddi am am na xam-xam parce que am xam-xam weesuwul même xanaa man mii li may gàtt dégg-dégg xam naa ni yow nit ki waroo waroo comme ni ñu ko waxee balaa ngaa laax jaay laax lekk ba pare mm-hmm. yow yaa ngi ñàkk xar sa waa kër ñàkk xar sa yaay ak sa papa nga ne xaaral ma jël deux cent mille jox ko xale bu ndaw koo xamante ni yéen ñaar da ngeen gis nañ naa yaa may dégg. ni lapin. bàyyi jàmm mais yow nanaa rafet di ay waay bi ngeen mënoon a gis na gis nga li gën a rafet ci man te waxoo ko bàyyi li ngay def da ngay ah, saboté. xam xam gis ma ko woon barke yàlla gis ma ko woon. Ah, man de li rafet ci yow bu ma ko waxee. micro vas-y waxal. Euh, na wax non kon ne kon na wax am solo. <laughs> yow yow yaa yow yaa continué débat bi yow yaa bëgg indi débat bi fii. parce que li may wax arrangé wu la. yow de li ma wax su ma waxee. waxal loo gis. Ousmane envoyé na guerre bi photo bi ne ko maa ngi si la. léegi la xam kan la. bu wax la xam nga ma wax la. tey mu nekk. pour te dire man mun naa la xam nga man du ma nëbba. xam nga Rita xam nga Rita Rita. envoyé sa guerre xam nga Rita Rita. waaw Rita la Rita. du Rita. Rita nga koy xoolal discussion yi kañ bi gën a dee. Rita direct plateau bi xoolal gis nga. mu sol nii xoolal uus. beneen vocal bi li ma ko ci tegal moo naa ma wax. doo ci karam moo ngi nii loolu gën a dee li ma ko tegal. te fii nga ko fokaale ñun jotuñoo dee. nii laa dem xoolal. <laughs> lii dafa garaaw. maanaam ah. <coughs> jërëjëf eh vas-y yaa ngi wax Oustaz Modou Fall. <laughs> waaw dama ne. Mm. Euh, perdre naa sama repère moom moo arrêté. parce que waxi neex neex moo la sax. <laughs> Ah, yow yaa bëgg ay affaire yu neex yu sexe waaw parce que damaa bëgg lu neex. même su muy réew du benn. waxee yi dégg nga bokkul. safurlaa yéen a muy dégg. mu ngi bu yàgg yaa waxul rek. Euh, ñëpp xam nañ ni am na xam-xam. waaw daa foofu. parce que man mhm. sama jëmmi bopp xam naa ni waroo yow mhm. ñàkk xar sa yaay amul lum tabaski nga dem jël xaalis bu ni toll. Mhm. di ko jox kii que ce soit ak loo ko bëgg bëgg bëgg loolu nit lu ma ko. parce que balaa ngaa laax jaay laax lekk ba noppi. Mhm. mais nag question bi jar a mooy ki nga xam ne am na xaru tabaski ba pare mu leer ko ni man mii yor naa lu ma joxe ndax parce que posé wuñ question boobu de. oustaz waxul ak ñooñu. oustaz sax waxul loolu. waa léegi loolu dafa jar a mat leeral parce que mënoo ni. képp ku jël xaalis di ko jox sa gel mu tabaskee ko mhm. yàlla dina ko layoog yow ëllëg waa ki ko yor mën ko yaa ngi dégg ki ko yor mën ko kooku noonu ndax yàlla da koy layoog moom wax wala déet man loolu bëgg naa koo xam mhm. parce que fii moom kenn bëggul dem ba foofu yàlla naan la li nga def ak li nga nangam di la fa yàggal nañ waxante dëgg mhm. yaa ngi dégg léegi nag su fekkee loolu dafa am mhm. bu fekkee ku jigéen ki daa war a fay ñu <laughs> leeral ko yooyu yëpp ay ay xeeti leeral la ay xeeti waaw ndax day day fay liñ ko joxoon waaw wala déet moom sama gaan lépp lu faran moom lépp lu yem si moom day faran si man xam na ko wolof di waxee noonu us dindawul gënam xar moom yaayam papaam lay dina xar jàpp ñaw maram moom dindawul ay gel meeram bi ñàkk fay hmm. meer eh, meer bi dindul ko hmm. parce que meer am na meer mooy nee na amagul xar non meer mooy defar kon yow sa gel bi day xaar ay us moo ko maanaam Modou Fall dafa wax loo xamante ni mhm. ku nekk bul jël xel mu sell voilà bul jël sa xel mu sell ak li la arrangé bu ko taf sa côté Modou Fall li yàlla wax la wax de mhm. waxu fi loo xamante ni mhm. maanaam lu amul diine la mhm. maanaam suñu borom dana ni ëllëg yomal xeyam dërëm sa dërëm boo jël def ko fenn dañ koy lijjanti te boo ko defee ci lu lewut des koy lijjanti yërëm naa ñam xaalis nag yaa ngi déglu te mumu def farata moo gën ci ñun. lu dul mm. farata. surtout loolu. mais ku dul jàkka ji du église ba. Mm. juróo ko jëndoo ko. Mm. xéwal ga nga dugal ci moom. sañ nañ la ko laaj. te xéwal ba oust dafa am intention boo ci jub boo ci jublu. pour après tabaski wala jour tabaski mu ñëw seet si la. mais am na ñoo xamante ni déedéet léegi yow da nga borom xaalis yi nga yërëm. xam nga loolu nga yërëm naa leen léegi tey. ñun bu ñu toogoon nii comme ça ñun ñett ma laa leen. Mhm. ku ci nekk ñu ne la faaw nga sàcc te boo sàccee ba pare li nga sàcc dañ koy dugal sa taat yow looy sàcc. ah. question bête ah. Euh, baax na. looy sàcc yow. man sàcc naa ba pare nii te yëgoo ko. non wax ma looy sàcc. de sàcc damaa sàcc ba pare te yëgoo ko. kon bu ñu ko dugal du ñu <laughs> yëg looy sàcc ah bu fekkee. ki la war a wax te foofu xeeñ. waaw <laughs> moo tax <laughs> la ñuy def naan ndox ba muy <laughs> bu muy indi rek. otu ndox ci ñu ko. ko. kii dafa koo. ñu ko ciy def nii. mais ki sàcc kóon yi nag. wala ñuy sàcc ay ron ñu war a dugal ku ci nekk li nga sàcc sa taw loolu dina métti moom moom ma ñëw ci oustaz Modou Fall man li mu wax mhm. tullu ma ko lu garaaw li wax dëgg la maanaam chaque jour nañuy bàyyi xel wax ma man nee naa la je l'aime beaucoup parce que yow moom tey nga koy doog a bëgg gis nga gis nga gis nga gis nga eh, gis nga faaw ñu bàyyi mhm. li muy wax arrangé na ma nice li mu wax arrangé wu ma non. dëgg la nañuy xool dëgg. maanaam mu waxut lu mu tey. moom li mu wax du moom moo ko créé lu am la. tabaski daf ñoo war ci kuy jullit ci boo ko mënee. bañ na ko ba xaru tabaski dafa am nu muy demee pour mat xaru tabaski. Mhm. dafa ami farata ami sunna Mm-hmm. boo demee ba nga xamante ni mooy ca fa ñuy julee it ni ngay julee korite kàbbar gaag ak kàbbaru tabaski bi uute na. ah bon kon lu ci nekk dafa am idda lu ci nekk dafa am addila lu ci nekk dafa am fu ñu koy teg am fu ñu koy teggee maanaam moom waxul waxi boppam loolu de un nañ ko sóor ba pare mm-hmm. ñun nag olof lañ dégg tey da nga gis bu fekkoon naara taxaw di waar dañ naan est-ce te naar a taxaw di wax li ma dañ naan iskay mhm. wala keneen. Mhm. mais kii olof laa leen làkk. Mhm. et man ne wax naa iskay. waaw ba tey yaa ngi comprendre maanaam nañ déglu fa leen di waxee bu baax a baax lu la lewut lew la. mu ngi waxaaleel ñi nga xamante ne ay naafeq leen seen ndey nekk fi seen baay. nekk fi yor dërëm surtout surtout surtout. ut ku ñu ñaf jongal jar na leen ñu jëlub deux cent mille jox ko ko. ngir xool après fu ñu koy cottee kus xarafal. mais loolu yéeme na. maanaam maanaam nañ déglu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. su ustaas waxee pas ayoon nañ ko surtout gis nga nag farak gel ak nangam sàngam man sama décision bopp. Mm-hmm. man mii su ma teralee sama ndey ak sama baay su ma amee ku may bëgganteel may ko de. Ah, sama ndey ak sama baay. Mm-hmm. ku may bëgganteel. teraanga laa sekk ak moom. su ma ko mënee jox dama koy jox de. dëgg la. ñu bëgg ko ñu bañ ko loolu xam nga man la man la man la engagé. dëgg la. man la engage mhm. engagé wu te waxuma it kenn def ko. dëgg la te it ko nit. Mhm. waaye dama ne man laa wax man. Mhm. su ma defalee ndey ak baay ba pare. mag na naa ñuy nekk. ma yéene ko vingt cinq mille franc yor dinaa ko ko jox. dëgg la ko cent mille franc yor dinaa ko ko jox. parce que nit nag buy ànd ak yow. avancement la ci bëgg. dëgg la. ak nit bu mu mun ti doon muy ci ku mm-hmm. góor ki mm-hmm. di ci ku jigéen mm-hmm. nit kuy ànd ak nit dafa am avancement boo ciy ñont mooy intérêt dëgg parce que gars yi ñoo jël intérêt réyal ko bu ñu nee nit intérêt ñu jël foog ni déedéet intérêt dafa am lu tax intérêt naanaa xëy si bi muy xëy si fii intérêt am pire pire et dur mu moo di wàcc may xaar mu tiitare ma yóbbu ko intérêt am la moo tax par force du bëgg ma buuse mu ngi noonu léegi intérêt intérêt yooyu la maanaam bu ñu gars yi ñoo jël intérêt bu ñu wax ne ñi intérêt hmm. nanga hmm. te te ànd bi ngeen di ànd di ñibbi intérêt am la waaw waaw lu souligné ko. loolu la wax ko wax ko. ku si maanaam lu ci lu ci lu ci nekk rek. Hmm. gisoo ko léegi léegi mu pare rek mu ne ma bu ñu paree ñu dem suba teel ma ne ko di nga xam ku la yóbbu. ndax man sama weneen dem na. yaa comprendre ku ci nekk dafa am bu ñu jël intérêt bu ko banaan mm-hmm. déedéet fii ku ci nekk intérêt mm-hmm. maanaam suñ borom xam nga jaamu yàlla bi ñu koy jaamu yàlla yokk ko wàññoo ko dëgg la ko ni froid ni chaud. effectivement mais intérêt sa bopp gi mu am ci yëg ni moom mooy rabbi samaawaati wa ma fil ardi. Mm-hmm. moo tax mu wàcce ñu fi. ba pare jox ñu ay ndigal nañ dee leen ma jaamu. ngir yëg grandeur am. ba pare nag gën ñoo dee ne dee leen ma tooñ. di ma jéggalu di ma jéggalu bu nge ko munul. maanaam dama leen fiy jëlee indi fi ñeneen. li gën a garaaw ngeen ñaan ma ma may. li ngeen sant ma doole. maanaam boobu xam nga lu tax ban intérêt la la ñuy woon ci jëmmam. Mm-hmm. que moom mën na. waaw waaw maa mën. mën noonu la. maa mën mën na ah des fois ñu naan la yaa mën yàpp doole waaye ki mën ki ëpp doole rek moom la. suñ toog la toog dëgg la. <laughs> kenn xamul kenn xamul fi ne. waaw mais mais mais sama laaj bi ma laaj Oustaz Modou Fall yow mën nga ma cee tontu. ban yow jàng nga. Ah, ki nga xam ne teral na yaayam ak papaam. yaa ngi dégg maanaam mu jënd xar. Mm-hmm. xam nga dañu ki jëndul xar mais ki jënd xar daal di dem teral gelam kooku ndax yoon lan la ci wax yàlla lan ci wax man tontu naa la déedéet yow danga ne yow li nga wax yow la engagé voilà mais déedéet déedéet man damaa bëgg nga tontu ma lu yàlla wax man damay jëlee ñaar waxuma lu ci yàlla yàlla wax foofu du ma ci dugg bëgg <laughs> dugal damay wax lu leer non mais mooy maanaam nanaa mhm. man de li ma xam te bëgg mooy sekk naag yow teraanga damaa war a woo oustaz Maodo Niang. déedéet jarut woo kañ ñu ñoom ñu yaatal di ñu gën a <laughs> jaru fee woo ñun ñi mën nañ oustazal suñu bopp xaalaxa suun <laughs> oustaz Maodo Niang loo ko fi wooye mun a mun a nga naan ko yaa oustaz mu naan la ndaxte <laughs> luxa arabiya maanaam di la génnal ay saddak te balaa muy àgg foofu may wax téléphone bu bees lay lay li la te loolu lañ fi talul téléphone bu bees laay am nii. ñun ñun lii nii wax rek. fay ma sama téléphone. man mën naa tontu mooy man. nanaa ma defal maanaam tabaski daf maa war man ba noppi. Mm-hmm. maanaam waaye man balaa mu maa war nag ci man laa wax. Mm-hmm. su ma xoolee sama ndey amul xar. Mm, tabaski waruma de moom laa koy jëndal de. ah man moom laa koy jëfal. ok. war na man bu ma ko mënee. loolu mooy yoon wala yow sa opinion. man maanaam sa waajur sax. Mm-hmm. maanaam du yow yaa ko war a utal tabaski. moom bu ko mënee na ko defal boppam daa war ku ne. d'accord waaw parce que dafa war wàccul ku yàlla bind dafa war ku ne. Mm-hmm. ku ko mën def ko bu mm-hmm. matalee nag. léegi nga am droit léegi nga am droit jël sa gel mm-hmm. jox ko. ci kaw nga am xar. man man man ma am xar ñàkk am xar. man wax dëgg faal su ma ko yoree naa ko may te du ma ko jënd dama ko am tabaski baa ngi noonu jàpp ci. du ma ko ni jëndal li du ko ni defal lee du dama ko am. jàpp ci waaw léegi heureusement ba moom célibataire yi lay waxal heureusement. Ah. waa léegi nag euh, fexe leen ñu def farata rek. incha allah alors moom noonu. mais mais ñiy taamu ay millions ay deux millions. Hmm. day na waar de. léegi fi mu toll bala nga cee am. Hmm. deux millions ngay fas. deux millions sa léegi laajotuñ ko.